xam ne ñoom gërëm ne ko. bëgg nañ ko itam suñu xol. bëgg nekkati seen xol. gërëm ay gërëm ay waajuram. bëgg leen. bëgg leen. mu fekk mbokk gi. mu fekk mbokk gi. bis boobu benn bis gënu ko rëy ci suñu ne boobu bës benn bës gënu kaa rëy ci suñu kanam. Adja Kodjo mu nii. mu ne Adja kojo mu ngi nii toog. muy bànjadi Amath di suñu jigéen ñun. muy bànjadi Amath di seen jigéen ñoom. la léegi ne la ñaari maam yi bokk ndey ak baay. mu ne wax na la léegi na la ñaari maam yi ñoo bokk ndey ak baay. maam Demba Absa moo leen jur. maam Demba Absa moo leen jur. ñun àndala Absa jur ñu. ñoom àndala Absa jur leen. ñoom ñaar ñi bokk ndey ak baay. ñi bokk ndey ak baay. ak mbokk mënta paase foofu. mu ne ak mbokk mënta paase foofu. papaay Ahmed te mu ngi nii toog. mu ne papaay Ahmed mu ngi nii toog. muy Alaaji Malick Cissé. muy Alaaji Malick Cissé. muy suñu mbokk di suñu doomi baay moom itam. mu ne di seen mbokk di seen doomi baay. di càmmiñi Adja Kojo mi toog. mu ne di càmmiñi Adja Kojo mi toog. xam naa ne sonn na ndax xam naa ne mu nga jógee ba Serekunda. mu ne xam na ne sonn na ndax mu nga jógee ko ba Serekunda. ca Gambie wala London ca Gambie wala ca London te Gambie. Kër Baye Cheikh Omar. Kër Baye Cheikh Omar Touré. ñëw fekkee si bis bu tedd bii. mu ne ñëw fekkee si bés bu tedd bii. ak ñi ñëwoon ñëpp jógee foofu. ak ñi ñëwoon ñëpp jugoo koo foofu. ak ñi jógee Jooson. ak ñi jugoo koo Jooson. ak ñi jógee ci barab ko ci Saloum. ak mu ne ñu jógee ko ci barab yu bëri ci Saloum. ak ñi ñu fekk fii ci Dakar. ak ñi lépp rek ak mbokk ko waral. mu ne te lépp ak mbokk a loolu. mu ne yaakaar ba ñëpp tasee. ba ñëpp tasee. yàlla bu ko yàlla tas. yàlla bu ko yàlla tas. yàlla wàcc ci sëy ko ci sëy bi. def ko sëy buñ barkeel. def ko sëy buñ barkeel. maye ci njaboot itam barke. maye ci njaboot ju barke it. ay saalihiin ak ay saalihaat. ay saalihiin ak saalihaat. yàlla buñ ci rëccu dara. mu ne yàlla buñ ci rëccu dara. yàlla buñ ci gis lu ñuy rëccu yàlla buñ ko ci dégg. yàlla buñ ci gis lu ñuy rëccu yàlla buñ ko ci dégg. sëy yàlla barkeel ci aadama ba léegi. mu ne sëy yàlla barkeel ca aadama ba léegi. yàlla ci boole sëy bii. yàlla ci boole sëy bii. yàlla yàlla yàlla lépp. njaboot gi mu ciy maye itam. njaboot gi mu ciy maye it. nañ nekk njabooti lislaam. yàlla nañ nekk njabooti lislaam. di njabooti tijaan. di njabooti tijaan. di njaboot goo xam ne. di njaboot goo xam ne. fu mu taxaw mbokk yi siggi. fu mu taxaw mbokk yi siggi. yàlla mën ko mu ne yàlla mën na lool yàlla na ko yàlla def. amee nag. ñoom seen doom la. ñoom seen doom la. waaye suñu xarit la itam. seen xarit la itam. waaw gërëm nañu jikkoom. mu ne gërëm ne jikkoom. yàlla boole na ñoom moom. yàlla boole na leen ak ñoom. ca Gàmbi. ca Gàmbi. ci Kaolack. ca Kaolack. ci fii ci Dakar. ci fii ci Dakar. waaye gisuñ lenn lu ñu nemmeeku ci moom. waaye gisuñ lenn lu ñu nemmeeku ci moom. damay mbaax ak bëgg mbokk mi. lu dul mbaax ak bëgg mbokk mi. Baye nag laajoon nañ ko ne ko. Baye nag laajoon nañ ko ne ko. mbokk ak xarit ku ci gën a foor. mbokk ak xarit ku ci gën a foor. mu ne xelante woon suma di suma xarit rek benn yoon. mu ne xelante woon suma mbokk di suma xarit benn yoon. nga xam ne. nga xam ne. xam na ne mbokk gi dara mënu koo dindi. xam na ne mbokk gi dara mënu koo dindi. waaye bu ci xarit wàllu see. mu ne waaye bu ci xarit wàllu see. daf koy gën a fooral gën koo dëgëral. daf koy gën a fooral gën kaa dëgëral. gii nag. mbokk gii nag. ak xaritoo. ak xaritoo. wàll na ci. wàll na ci. bokk naan waay itam. bokk naan waay it. wàll na ci. wàll na ci. ndax ndax. xale bii ñu muur. xale bii ñuy muur. baayam ilimaan la. baayam ilimaan la. baayam mu ngi askanoo ci Mawlana Cheikh Ibrahima. baayam mu ngi askanoo ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu. sëy bii. sëy bii nii. boole nañoo ak moom. boole nañ ak sëriñ bi. boobu boobu ba léegi ñëw na ay yoon Medina. boobu ba léegi ñëw na ay yoon Medina. di dal ci man. di dal ci sëriñ bi. te sëy bi moo ñu jokkale. te sëy bi moo leen jokkale. ba loolu am ba loolu am. ñu ngi sant yàlla ci anam yooyu yëpp. kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi sant yàlla ci anam yooyu yëpp. yàlla nag. wax nañu ne buñ santee mu dolli yàlla nag wax na ne buñ santee mu dolli yàlla dolli yàlla dolli li muy dolli yàlla nekk ay teraanga yoo xam ne dafay jokkaloo li muy dool li muy dolli yàlla nekk ay teraanga yoo xam ne dafay jokkaloo daa iman du dog mukk ci daa iman te du dog mukk du wàññeeku du yàqu du yë du wàññeeku te du yàqu it barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim euh, Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu barke waajur yu baax baax yëpp. ak maam yi ak maam yi. seen barke yi tasaaroo ci ñoom. seen barke yi tasaaroo ci ñoom. yal na dajee ci Ahmed ak jabaram. yal na dajee ci Ahmed ak jabaram. ngirtu loo xam ne. bu boobaa ñu am ngirtu loo xam ne. ngirtu lu barke lay nekk. ngirtu lu barke lay nekk. yàlla mën na loolu yàlla ko def. yàlla mën na loolu yàlla ko yàlla def. maa ngi ndokkeel ñëpp. mu ne sëriñ bi nee na mu ngi ndokkeel ñëpp. di jiital seen jigéen Adja Kojo. di jiital seen jigéen Adja Kojo. ci taxawaayam ci mbir mi. ci taxawaayam ci mbir mi. boobu ba léegi fépp fu mu taxaw rek Ahmed wax na ma ko. boobu ba léegi fépp fu mu taxaw rek Ahmed wax na ko sëriñ bi lépp rek di taxawaay yu gërëm lépp nag di taxawaay yoo xam ne gërëm ne ko te mbokk te mbokk lii rek la mënal mbokkam te mbokk lii rek la mënal mbokkam Seydi Ali Cissé daf daan wax ne mu ne bàyyam Seydi Ali Cissé daf daan wax ne nit ki ku tuuti la su fekkee moom kenn la nit ki lu tuuti la su fekkee moom kenn la waaye lu bëri la su fekkee ay bokkam nga ànd ak moom mu ne waaye nag su fekkee ne ay bokkam nga ànd ak moom lu bëri lay doon te loolu feeñ na fii te loolu feeñ na fii yàlla ko yàlla saxal ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp sëriñ bi nee na mu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla di ñaan yàlla jotaay bi képp ku fi fekk jotaay bi képp ku fi fekk soxla boo mën a am yàlla ko yàlla faj soxla boo mën a am yàlla ko yàlla faj képp ku fi fekk képp ku fi fekk sa yaram xaw a sutaate sa yaram xaw a sutaate yàlla ko yàlla saafara yàlla ko yàlla saafara képp ku fi fekk nga am jafe-jafe képp ku fi fekk nga am jafe-jafe yàlla yàlla dindi jafe-jafe ba yàlla yàlla dindi jafe-jafe ba képp ku fi fekk képp ku fi fekk nga am xat-xat nga am xat-xat yàlla yàlla yàlla na yàlla yaaxalal la xat-xat boobu. fekk nga am bor yàlla na ko yàlla fay. képp ku fi fekk nga am bor yàlla na yàlla fay bor boobu. yàlla na yàlla boole ñu wattu ñu ñu ñëpp ci lislaam. wattu ñu ci gëm yàlla. wattu ñu ci gëm yàlla. sëriñ bi nee na ñu ngi sant yàlla bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah.